alors euh, yaa ngi woon si biir salle d' audience bi jot nañu gis euh, première partie bi nga xamante ne moom audience bi mu jàll ak témoins yi euh, tey jii ban jàngat lañu mën a am ci procès bi. ah ko déggee ak ni ngeen ko fekkee wolof Njaay nee na lu ne fàng kenn du ko jeex tey ñi seetaan procès bi yëpp dañoo jommi. dañoo ree dañoo xaq tay bu ñu commencé par outrage ñoom ñi ñëw ñëpp ku ñëw ni vraiment Bougane yëkkatiwul benn kàddu bu tegginewul saagawul xastewul deful dara lu ñu tooñ amul kenn ku mu tooñ tamit du capitaine du adjudant du du du chef du agent kon boobu daanu na tribunal ci boppam constaté na ni dañoo sosal Bougane pour gën koo téye prison loolu procureur moo ko ci yokk sax ndax bi ñu demee ci gendarme yi Bakel maa fa nekkoon ak metre Ba affaire outrage kenn tudd ko fa ba jour bi mu ñëwee fii Bougane procureur yokk ko ci outrage pour gën koo dugal waaye tey defe naa ni ah tey moom dëgg feeñ na ne outrage amul ci topp moy rébellion kenn ci ñom néwul euh, euh, Bougane dafa jëm a wala reyante biñ koy japp rébellion bobu daanu na ndax mom mo yëkati ay loxoom ne leen comme convoi bi mo leen déranger pour mu dem Bakel ndax da ngeen président mu ngi Bakel kon dañuy bàyyi convoi bi fi ci tali bi ci mbedd mi man ak Anta Babacar Ngom ak Thierno Bocoum ñun trois leaders yi sàmm sa kaddu ak sunu ko dinañ dox kon dem Bakel ñu leen dox déedéet du ngeen Bakel ngeen dul dem ñu leen non mais ak tànk ko bàyyi ngay convoi bi dem convoi bi dafay toog ñun ñu dox dem Bakel ñu leen du ngeen dem Bakel kat mais bugaas ni leen ñoom ñëpp wax nañu ko de xalaat kon da ngeen may jàpp vous m'arrêtez je marche ou vous parce que man damay dox dem ñu ne ko jàpp comme yaari nañ la jàpp jàpp nañ la sama sol am yaari nañ la jàpp jàpp nañ la ci lan ci ndenge da ngay dox dem Bakel comme convoi bi dérangeré nit ñi da dox ñu ne noonu léegi jàppale ne prison nga jëm kenn amul droit dox dugg ci dëkk boo xam ni président moo fa nekk président bu demee seeti sëñ Muntaxa Touba kon kenn warul jógee Mbàkke dugg Touba kenn warul jógee Daaru Muxti dox dem Touba kenn warul joge Daaru Salaam dox dugg Touba ndax Touba ca Daaru Minam xalif bi mu ngi recevoir président de la république waaw waxi dof yooyu kañ la am ci réew mu bëgg a dof waaw Sénégal kañ la dof président mu nekkee ci dëkk ñetti di dox ñu ne non dox dugg ci dëkk boobu président mu ngi dëkk ba du ngeen dugg ci dëkk boobu Sénégal yi yéen jommiwu leen tey question yi bu ñu koy posé gars yi dañoo rus ñoom ñu doon posé question yi soit disant ay gendarme

ñun ndox bi dugg seer kër ba nangu seen kër yi comme ay ngeen ñu convoi bi dem xëy na convoi bi ni mu jekkee oto yi ni ñu rafetee ni ñu àndee jaagar-jaagar yi dugg ci dëkk bi xëy na fekk fay oto yu ànd ak président Maguette Koubidas xëy na loolu moo leen metti ñu ne non non non non surtout que ñoom indiwuñ benn ndimbal fa ñuy jëm ñu ne déedéet du ngeen dugg ñu ne waa kon convoi bi na toog ñun ñu dox ci dox boobu nag ñu ne leen amu leen droit dox loolu infraction la ah prison bu gandi li ko waral mooy damay dox dem Bakel ñu ne ko doo dox soo dugg Bakel dang dul dox marche lu am. mais li gën a garaaw euh, mooy Bougane bi nga àndoon ak yeneen ñaari leader Thierno Bocoum ak Anta Babacar Ngom mais moom lañ ci seppi parce que moom dafa sonal gaañi nag moom mooy déranger pourtant Mbour Thierno Bocoum dana ma day dox Anta Babacar yi day dox ñuy avancé ñu leen niip Bougane téye loxo yi di ko da ngeen may jàpp parce que man damay dox dem de ñeeni dañuy dox de waaye ñu mennum Bougane lañ seppi ti Bougane gaare na convoi bi bàyyi ko ci mbedd mi nar a dox ñu ne ko dox boobu nag la ñuy bañ parce que président bu nekkee Diourbel wala mu nekk Thiès wala mu nekk mbuur kenn du dox dugg mbuur kenn du dox dugg cees kenn du dox dugg Touba wala Tivaouane boo président nekkee ci sëñ Babacar sëñ Mbaye Sy Mansour mais yéen ku jógee Saint-Louis da ngay taxaw amoo droit dox dugg dugg dugg dugg Tivaouane ku jógee ku jógee ku jógee

ma baye fi convoi bi dox ñu ne ko doo dox kon yaa ngi prison loolu nag tey buñ ko bàyyiwul nga xam ne am na leneen lu ci làqu buñ bàyyiwul tey bugaan Sénégal yëpp maa ngi leen xam leen ni kon dafa am lu ci làqu xëy na li ko tere def campagne ba léegi li tax ñu tere ko def teguñu ko fenn kon mooy continuer kon xanaa loolu rus nañ ko def tribunal bi ma gis ñi ñu déglu ah gëwu ma ni dinañ def ëllëg lu ñu di xeebee ñëpp a gis ni mu demee Bougane ah, gisoo ko muy jongle gisoo ko gisoo gisoo ko gisoo ko mu mel ni champion d'Afrique ah gisoo ko mu mu muy toj affaire yi leer du dugal ay but du dugal ba gars yi jaaxle procureur jaaxle ñëpp jaaxle gars yi dañu wax bu ñu xool di waa kii lu ñu ko indee fii sa waay tooñ nañ ko de kii lu muy def fii place bandi yi ñu naan ëndandoog moom muy tëdd ci lali bandi yeeg néegu bandi yi kii bandi la kii di dimbale ñu sonn indi ay ay ndimbal lii la mérité damay dimbale waa Bakel yi sonn lii la mérité yéen waa Sénégal ku waxul dëgg wax ca des yàlla nañu yàlla musal ci lu dëgg yàlla nañu yàlla dimbale ba tribunal bi yàlla leeral xelam teg ko ci siraatal mustaqiima bu attee dëgg ndax loo atte fii dëgg yow attewaat ëllëg cey yàlla am na de ëllëg dañ ko sóoraale gars yi tooñ baaxul tooñ baaxul en français en français Ce qu'on peut vous dire, c'est que vous avez constaté, vous-même, que le dossier est vide. Vous avez suivi les déclarations des témoins, des gendarmes eux-mêmes. Ils ont montré qu'il n'y ait pas d'outrage. Ils l'ont même mentionné dans leur déposition. Pourquoi, monsieur le procureur, a-t-il retenu le délit d'outrage qui n'existe pas C'était ridicule, c'était un, un, dessein, un besoin, une intention de charger le dossier. Mais aujourd'hui, c'était ridicule. Pour la deuxième infraction, la rébellion, tout le monde a montré, y compris les gendarmes témoins, que Bougan n'a fait aucune résistance et qu'il s'est même rendu en disant clairement aux gendarmes que si je ne marche pas, vers Bakel, arrêtez-moi. Et le capitaine de lui dire, comme vous voulez que je vous arrête, je vous arrête, M. Gay. Donc on a arrêté Bougan parce qu'il a voulu se rendre à pied à Bakel, abandonnant même son cortège. Mais malgré tout, on l'a arrêté. Pourtant, il était en compagnie et de Kierno Bokoum. Mais c'est qui n'ont pas été arrêtés. Donc c'est Bougan qui les intéressait. Parce que Bougan dérange dans ce pays. Vous tous, vous le savez. Bougan dérange. Bougan dérange. Bougan dérange. Il fallait l'arrêter et l'empêcher de battre campagne, de participer à la campagne électorale qui a déjà démarré. C'est injuste. Pour la troisième infraction, la contravention, de refus d'obtempérer. Mais non, on a montré aujourd'hui que Bougan, chaque fois qu'on lui a demandé de s'arrêter, il s'est arrêté. Il s'est exécuté il a obéi aux ordres des gendarmes. C'est pourquoi même il avait décidé de marcher en abandonnant son cortège. Donc en disant qu'il y a refus d'obtempérer, on raconte des histoires. Donc aucune infraction n'est constituée dans ce dossier. Il y a un souci manifeste de faire mal, de l'envoyer en prison. Qu'est-ce qu'il a fait Aider des populations. Vouloir aider des populations sinistrées, des populations chassés de leur maison par les eaux. Des populations qui sont dans la misère. Et il a l'habitude d'aider les populations en difficulté, aussi bien celles de Kerbassar, les populations de Kerbassar, celles de Touba et ailleurs, et même aujourd'hui, les populations de Bakel. Et ça dérange que les autres ne font rien. Et ayant tous les moyens, ayant le pouvoir, ne font rien. Lui, il fait. Mais ça frappe la conscience de ceux-là qui devraient faire et qui doivent faire et qui peuvent faire. Mais lui, avec ses moyens, il fait. C'est ça, Bougane. Je l'espère parce que face à un dossier vide, confirmé par les témoins et les témoignages, rien, rien ne charge, absolument rien ne charge M. Bougar Guédani. Tout est pour sa relaxe pure et simple. Comment peut-on le retenir encore à Tambacounda, dans la chaleur, en pleine campagne électorale, alors qu'il n'y a rien dans le dossier Il n'est pas un bandit, il n'est pas un trafiquant de drogue, il n'est pas un voyou, il n'est pas un criminel, mais il n'est pas un violeur. Mais comment peut-on le retenir ici alors qu'il est candidat aux élections législatives Alors que c'est un leader dans une coalition Comment peut-on l'empêcher de participer à la campagne électorale Je pense donc qu'aujourd'hui, le tribunal va vider, va rendre compte, le, tribunal va décider, le tribunal va vider son délibéré. Le tribunal, je le pense, le tribunal est composé d'hommes intelligents et certainement humains, et, sérieux, et rigoureux, et juste. Parce ce serait injuste de retenir davantage Bougar Dani, qui doit être relaxé aujourd'hui pour le plus grand bien de la démocratie sénégalaise et pour la victoire du peuple euh, sénégalais. Euh, je pense que je pense qu'il sera relaxé. Tous les avocats sont optimistes, le public est optimiste, le tribunal lui-même sait qu'on a chargé Bougan, outrage, rébellion, refus d'obtempérer, un communiqué mensonger de la gendarmerie qui dit qu'on a demandé à Bougan de laisser passer le cortège du président alors que ce n'est même pas la même route. Ce qui est faux. Le président devait venir par les airs et ceux qui devaient l'accueillir devaient venir de Tabakunda vers Kidira. Et Bougan est parti de Wurusogi vers Bakel. C'est deux routes distinctes. Vraiment, c'est ridicule de retenir Bougan de l'arrêter et plus grave encore, de l'emprisonner. C'est vraiment injuste. Ah oui, Bougan est en forme. Il ne mange pas depuis plusieurs jours. Mais il me dit, je bois. Je dis, Bougan, tu vas mourir. Il me dit, non, vous m'avez vu en grande forme parce que j'ai la foi dans la dignité et je veux me tester moi-même pour savoir jusqu'où va ma résistance et ma résilience. Cet homme est un modèle de courage, de dignité, de persévérance dans l'effort, d'abnégation, de résilience. Cet homme aujourd'hui sa place, c'est parmi les leaders politiques de ce pays. Ce n'est pas là-bas, à la prison de Tambacounda, où dorment des criminels de toutes sortes, des bandits, des voleurs, des escrocs. <laughs> Nous sommes optimistes merci que la victoire est au bout de l'effort aujourd'hui. Et nous allons gagner, Inch'Allah. Et je le pense. si kooku mu nekkoon euh, kii moo di maître El Hadj Diouf dégg nañ ay kàddoom bu baax a baax donc mu nekk euh, koo xam ne xame nañ ko baax a baax taxawaayam.